ñoo xamante ni si dañu yàq askan ci wax lu dul dëgg ci sos ci tuumaal nit ci toroxal as gor ñooñu dañu bokk ci xeet ñuy wax yaa jóge mu mel ni tam am na ñeneen ñoo xamante ni si dañoo yor kàddu maanaam saa bu nu xëyee fu nu waxee rek la ñuy wut ana la ñuy wax lu yàq rek lu yee fitna lu lu lu lu gàllal ko nit ñi loolu nag ku ci nekk ci këru ci kilifa yi am sañ-sañ ci àddu si mooy sant di ñaanal Sëriñ Mountakha suñu borom dolli ko dëgëral ndax xew-xew bu mës a am ci njaboot gi rek taxaw na ci taxawaayu kilifa joxe ci alalam dénkaane ci moo mbokkam ñi sëriñ Aboubacar Sy Mansour Macky Sall li mu def ci réew mi nañu wax li nga xam ne moom la président Macky Sall def moo gën coow li parce que lu kenn du ko jeex nañ wax ak jeunesse bi ubbi seen xel bàyyi li ñu leen di gëmloo te loolu amul président Macky li mu def biir Thiès fal fi ay ministre fal ay directeur ay chargé de mission ñu nekk fii ci Thiès te xale yu Thiès yi muy jeunesse bi gisuñu seen bopp ñoom ñoo liggéeyul. li ci nekk nag mooy président Macky Sall moo doy waa Sénégal président Macky Sall ak programme am moo ñu doy moom la ñuy àndal tey moom la ñuy àndal suba moom la àndal ginnaaw suba. loolu dama bëgg xale yi ngeen ngeen bàyyi xel li ñuy wax message bi yéen a ko moom surtout jeunesse bi parce que ñu ngi leen di nax di leen wane loo xam ni gëmuñu ko parce que boo leen tuddee dafa leen promotion nekk fii di wax loo gëmul di yàq ay gor loolu du politique kon donc maa ngi wax waa Thiès fii nga xam ni mouvement Thiès émergent ànd ak taxaw suñu bopp ak El Hadj Omar li ñu bëgg mooy dañu jog sol suñu dal fepp fo xamanteni bi ci Thiès nek na fa dañ fa dem waxtaan ak yow wax la programme Macky Sall wax la limu liggéey ci dëkk bi wan la ko nga gis ko parce que lu ñu fàng kenn du ko jeex. depuis Senghor la wax depuis Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci Ablaye Wade c'est le seul ministre limu def ci ministère bi benn ministre su ko fay def ci ministère bi. ni laaj rew mi nga ni dafa am ay doomu adama yu dëkk Sénégal wax sen bakkan yalla jël ko yow taxawoo benn yoon. massawu ñooñu taxawoo benn yoon wàcce kaamil ñaanal leen woote ni ñëw leen ñu xeex ñëw leen ñu nangam te yow barki demoo njaay nit ay nit bàyyi koo fi boo bëggee sa réew waroon ngaa wax benn communication bu dul boobu. Thiès gi moom mooy centre politique bu Sénégal Thiès yëngatu waaye lu gën a yëngal Thiès mooy daje bi am fii tey.

génération boobu war ko sàgganee ba Sénégal bu ëllëgee am lu mu nar a mel te loolu mat a bàyyi xel la élection yi ñuy dem muy 2024 benn élection la du ñaar ñett kenn moo soxla du ñaar ñett te kooku soxla mooy président Macky Sall su ma gisee monsieur le maire lu mën a caw ñëw toog c'est parce que ci yoon boobu la nekk moo tax dafa am loo xam ni dafa am solo te nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mooy avenir bu Sénégal yi waxtaan leen ak seen ay doom parce que léeg-léeg dañ leen di nax dañ leen di jaay loo xam ni amul dañ leen defal marketing ci loo xam ni sos la dañuy wëlbati seen bopp te loolu yëpp ñooñu ñu ko amul kenn ci ñoom koo xam ni mën naa taxaw wax luy dëgg ci dëkk bi koo ci woo ci pet te lu wax dara loo xam ni dëgg la loolu nag dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax. mu nekk xeex boo xam ne xeexu ñëpp la mu nekk maanaam taxawaay boo xam ne taxaw taxawaay ñëpp la waaye fii ñu jëm Macky Sall moo taxaw soxla directement moo tax keroog ba ma demee fële te meewaan nee naa Macky Sall dox nii wii nii non day wax wii wii parce que Sénégal moo ko soxla Sénégal moo soxla président Macky